yëkkati na mbaadu réew mi dëgg-dëgg dafay bëgg a yëngooti tribune yéene ka ne ma en tout cas coowal aji saar li moom yënguwaat na moom Ousmane Sonko day dina wuyu juge bi niki ëllëg yéene kaay bi dee média bi ne ma njiital Pastef daañu ko auditionné nag sur le fond ci dossier bi doyen des juges moo koy laaj niki ëllëg lay doon ay laaj nag daal di samp dëgg-dëgg fii réew mi toll ci dossier Sonko ak aji saar boobee yéene kaay bi ne ma ay ojo day génn na barki démboo Njaay ab marabu bu ñuy wax Baara Njaay def ko loolu nag mbaadu indi jiixi jaaxa ci teesu complot bi ñu wax geneenu kooku laaj moom moo di ndax nag njiital Pastef du wax ay ñoñam dëgg-dëgg ñu daal di génn ci mbedd mi daal di xeex en tout cas tribune mi may xamal ne ni ki ëllëg daal doyen des juges dina déglu Ousmane Sonko de ci boobu la coow ngir ñu déglu ko nag ci foowu dossier bu Adji Sarr bi critique yéene kaay ne ma politique bu réewum Sénégal bàjjo bi daanaka am pola ay complot ay secret yoo xam ne ñu ngi koy daal di nëbb liggéeyante xarfa fuufa njabar sax daal dinay am yéene kaay bi ne ma boo maytul day ma daal di lay sërëxal ci barki démboo njaay bu ñuy soppi gouvernement gi gaa yi ci li ñu quotidien mel ni ku naan maan ku weddi day laajal Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall ñoom ñi nga xam ne ñam nañu kaso fi mu toll nii nag waxu amnistie la ñuy wax ab loi boo xam ni nii mi ngi andi ak jiixi jaaxa moom ci bopp yi Jibril Njing directeur général bu pacte bokk ci gradeg ne ab loi d'amnistie ci ay nit yoo xam ne amatuñu sañ-sañu wot ci réew mi buñ ko defee mënuñoo wax ba tuuma du daal di juddu Babacar ba bu forum du justiciable daal di le ni bu ñu demee ci loi amnistie boobee ba amal ko nañu ko plaider nag ba daal ko deful loi bi mën naa andi jiixi jaax gu rëy ci réew réewum Sénégal le vrai journal ne politique gu Sénégal daal moo daal di métti bàjjo bi xamuñu ab coppiteeg changement sayem sukusem sax am nan changement di wane yoon wi yéene kaay bi ne dafa mel ni nag yi ci boppam ku leen wut seen bopp parti yi dafa daal di jeex ci réew mi le témoin yéene kaay ne parti socialiste day ma ngay jëx-jëxi ma ngay bëx-bëxi diggante Aliou Ndoye ak Serigne Mbaye Thiam lay doon ku ci nekk ci ñoom ma nga bëgg a wuutu Aminata Mbengue Ndiaye booba bés bi le jour daal di xamal ne moom Oxfam day la muy njort mooy sàll ngaari lam tooro Bourguédé ñetteel bi mandat daal bëgg a jagat-jagatee ak ñun daal di fay jëmee Oxfam ne lii xeeñ ci réewum Sénégal gannaaw seeni enquête ak leeral moom moo di ñetteel bi mandaa dëgg-dëgg moom la président Macky Sall bëgg ci réew mi moom ONG bi daal di njortu ni loolee mën na dugal réew mi ci guuta goo xam ni mar day taali ci réew moo xam ne nag am nañ opposant yo xam ne am nañu baat ak sañ-sañ ci kan wi direct news mel ni ku naan ut ñetteel bi mandat ci réew moo xam ne daanaka yaramu màggat la fépp ngi metti réew mi daal foo làmb gaa yaa ngay mer ba futtu fenn ci réewum Sénégal amul benn secteur boo xam xam ne mën nga taxaw ne secteur bii mi ngi dox njàng mu kawe mi doxul napp gi doxul mbay mi doxul càmm gi doxul poste ak santé doxul collectivité territoriale yi doxul gaa yaa ngi ñaxtoo fu ne saa si tembe ngir utu ndimbal yéene kaay bi ne ma mënoo toog ñaari weer yoo xam ne nii doo dégg nag grève wala manifeste ñu daal di koy amal ci bërëbu liggéeyukaay yi loolu yokk nag ci jafe-jafey dund gi nga xam ni sénégalais yi ñu ngi koy am rax ci dolli président sexal ñenn yokk leen salaire bàyyi ñenn ñi loolee nag gën a baxal cin li ci news ne ma te bax gi nag jeexagul administratif technique ak service yi nekk ci daara yu kawe yi daañu amal ñaari fanu inter intersyndical bu secteur primaire bi mooy napp gi càmm gi ak mbay mi ñoom it daañu amal juróomi fan yoo xam ne nii duñu liggéey ni ki démb yéene kaay bi na ma liggéeykatu post yi daal dinañuy amal grève bu tàng jër sàkku seen directeur général mu daal di leen di abal lu ko mooy lambay ñaaw réew mi quotidien daal di may xamal ne ni ki démb day ci seen manifeste yi ñoom liggéeykatu post yi dañu leen sànni gaz lacrymogène daal di leen di patam patamee ba mar detaali kaay daal di may xamal ne moom poste ci boppam fa mu jëm neexut de cig suux daal buñ ci waxul ca la jëm Massar Thioune contrôleur poste ci tribune yéene kaay ne Siré Dia ci boppam daal dinay bàyyee poste ab bor boo xam ni toll na ci téeméer ak juróom-ñett fukki milliards Walf Quotidien mel ni ku naan maan réew mee doxul de président Macky Sall nag mel ni ku nuy naxee mbaay xam le na ni nag fii ak ñetti weer dina wàññi location bi loo xam ne nag moom président Macky Sall ci juróom-ñetti at mi ngi koy jéem mënu ko weer lay foqar ci loxo mën ko location bi nag war a andi jiixi jaax ak jafe-jafe ci réew mi diggante ñay luwe ak ña nga xam ne ñooy bëri sax si tembe nag ña nga tàmbali xiiroo ngaayoo gi moom sàll li tax ni ki démb professeur Amadou Ka xamal ko ni sa góor naas ci boppam moo baaxul vox populi ne ma fii ko ka waxe woon ni ki démb fii la ko Omar Sow tontoo moom conseil spécial bu ma ki Sall Omar Sow ne professeur Camille waxul dëgg xam na ci boppam ne waxul dëgg ay force occulte nag ñoo ko yónni di ko wax loo muy ŋàññi président de la république ngir nag daal di ñaawal liggéeyam tilimal ko salteel ko waaju dangay ngay bañ ku téen loolu la de xanaa nga gëmm say bët rek waaye boo xippee daa nga gis ka dëgg le soleil yéene kaay ne en tout cas dund gi moom léegi mu wàññeeku ci réew mi leer na direct news ne ko fekk réew mi secteur yëpp daal di lompañ soobu ci gréew lii ko di jeene commune yi ci boppam yore yoreel Senelec ak ñaar fukk ak juróomi milliards ci 2021 bi ci boppam fayuñu courant libération yéene kaay ne moo ne Sénégal de coow yi demul bay bëgg jeex ndax nag ngir yeesal l'hôpital Aristide Le Dantec mii DCMP ak ARMP ci boppam dañoo weñ seen loxo présidence la république la lan defee lu ni mel daal di jël nag marché bi jébbal ko ci yaama neex ku ñuy woowe kantam njiital kantam googee di Alvaro Yves Collé nee ñu baaraamam niib ci Paradise Papers yi nga xam ne ay taskatu xibaar ñoo ci doon defu enquête moom waa ji nga xam ne actionnaire la ci banque de Dakar moom baayam ak keneen atte woon nañ leen ba tëj leen nag ci Espagne ci coowal banque te moo ne day coow li mooy libération ne ma seen société bi fii ci senegal lu ëpp fukki nit amuñ ca salaire sous ñuy def te ci jeexagul vox populi daal di may xamal ni yet wi day ngi dalee fu ne Mimi Touré coalition juste ne Mimi Touré bu yóbboo loi bi assemblée nationale beddi konte day daal di juddu Abdoulaye Timbo ne Mimi bu demoon assemblée nationale loi bi du juddu l'observateur ne ma en tout cas Omar yu moom ma ngay artu Mimi xamal ko ne nag sa bi mën naa taalum réew l'enquête quotidien ne ma loi Mimi Touré bi ci boppam dafa bëriwul bay rek su nekkee ni sax la ma bëgg noble na waaye loi bi ci boppam moo nar a beddi Eliman kan bu lekk ka waxta dund loi bi ci boppam politique moo ko tax a jug mu njaay si ne compétence daal nañ ko jiital ak lu mën a am yéeni bi bi ma forum civil tegoon na ab projet de loi ba nuppi ngir nag ay conflit d'intérêt jeex ci réew mi alerte quotidien ne ma réew mi daal neexee na nu ne Mame Mbaye ma ay bureau nekk ci jam ñaajo ministère am dafa lank ne du fa dem bañ ko falee ak léegi yéeni bi xamal ma ne benn yoon la Mame Mbaye Niang teg tànkam jam ñaajo nee na fii place too lay indi ay bureau boobu l'exclusive yéeni kaay daal di may xamal ne moom Isaaxa Diop day fal nañ ko amal na ñaareelu visite de terrain am ci diiru benn ayu bés ngir xool liggéey liggéey naka la amee ci wàllu mbënd mi lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci collectivité territoriale daal di leen di visité diggante Kër Massar ak Rufisque la nekkoon ni ki démb xam leen ne nag njiitum réew mi bëgg-bëgg mooy déglu askan wi faj seen jàngoro moo taxit liggéey ba nga xam ni tàmbali nañ ko daal dinay wàññi nag jëye gi nga xam ne mbënd mi mënoon na ko àndi ak jafe-jafe yi ren jii tribune yéen kaay ne mën nañu xëy ci salle de musculation yi coow li coow li mooy jongo may daal dañ fay dem ndekete ngir wër góor gu am doole l'observateur ne ma mbëggee la mën lu ne de xoolal papa benn fukket ak juróom ñeent la dafa jël nag néegu jabaram woon daal di taal xamal soxna si ne dinaa la rey te coow li coow li dara waralu ko lu dul soxna si dafa divorcé ak moom dem sëyi ak keneen ana ku ne woon mbëggeel xamuli at ak lu mën a am mbokk yi nan yendoog jàmm Mantoulaye Thioub Ndoye merci si revue de presse bi dina dellu si waat à 13h sur 89.7 Zik FM fii la la matinale